kikalla kikalla eh, eh. waa ji ngeen gis nii ah waaw sinistre la mais sinistre bi déclaration am lañuy xaar waa Sénégal lan la sinistre bi war a wax monsieur le sinistre kaay euh, man dafa am lu ma jaaxal ci affaire sinistre yi dafa mel ne dañ ko dañ ko ber def ko VIP mais ñun ñi nga xam ne nekk ci école yi ay yëmbal benn barak gunaas mais yooyu ak mbóot yi ak jinax yi kaña yi ñun ñuy bëgg rey mais noonu c'est pas vrai mais dama ne ONG bi nga xam ne service le Sénégal li muy def far far parce que ñu nekk foir ba benn ñoom chaque jour dañuy am kilo mburu ñu jël séparé ko pour deux personnes saucisson fromage gruyère olive ay supp yu tàng café beurre mayonnaise chocolat râpé mais am na ñoo xam ne sax dañ leen di jox tabac ñuy tuux nekk seen jàmm guddi gi ñu jox leen ay suppu yàpp yu neex mayonnaise def ay méchoui yi cere baase yi cere daxante yi ceebu yàpp bu niin boisson canette mais nañu waxante dëgg ngénte sinistre a lan la ñun ñi nga xam ñu nekk ci yeneen gox-goxaan yi ñu ngi bëgg a dee yoo yaa ñuy mat jinax yeeg kaña yi mais ñu nekk ca foire ba moom mooy sinistre VIP parce que ñoo ñu ngi seen jàmm mais attention ñi ras dem bokkul ak ñi gàmmu am na ñoo xam ne ay sinistré dëggantaan nañ tal nañ leneen lu raas dem mais am na ci ay raasaatukat yoo xam ne bu guddi gi jotee wala eh, voilà voilà foire ba ñuy dem ah di xosom xosom xosom yi mais loolu dañ ko waxtaanee parce que dañu war a jël marié yi berlin marié yi nga xam ne ay couple lañ dugalee ci pavillon des mariés mu wóor na ko fa dégg yuuxu ay yuuxu la ku ne xam ne yuuxu fa xew mais foo xam ne marié na nañu waxante dëgg nga tëdd ak sa jabar keneen nekk sa ginnaaw te du sa jabar et eh, dama ne la nuit tous les chats sont noirs am na ñoo xam ne bu ñu déggee yuuxu seen xel nekk ci yuuxu yooyu ba ñu ne yeddu man ñaata yoon nañu ma yeddu du yoon nañ ñu ber nañ ñu ber et puis tamit c'est dangereux maa koy wax ngeen koy caaxaanee daawaat géej ak daaw am na doon raasatu ci xale yi ba ci ñu bëri dañ ci wanu lor am na xale yoo xam ne fa nañu jaar nekk ay faxmaan su may wax ak yéen dama bëgg ngeen wax ni ngeen xool li may wax c'est très sérieux et ñii nga xam ne teraanga bi ñu leen defal nii duñ fa mos a jógee ah. koo xam ne yow pour nga amoon problème loo lekk le matin le soir dafay të ñu xëy di la jox ay pain fromage ak beurre râpé mayonnaise ay mburu yoo xam ne dafay nooy nepp ay pain chaud ñu ne déedéet waaye nga toog 30 minutes wala une heure de temps ñu jox la nga secrétu ndox mu sedd sachet d'eau nga tàllal sa tànk wër foire bi tuuti ñu ne añ jot la looy añee ñu ne ceebu yàpp nag bu fees dell jox la jus le soir jox la cure-dent ak coton tige nga raxas say nopp doxantu ci plage bi sa biir bu feesee dama ne sa biir fees ah sa xol fees ba pare <laughs> xam ngeen li ma bëgg a wax attention nañu def attention kon nañu yemale ñëpp ONG Servir le Sénégal li muy def baax na waaye bu mu ko yebalee ci foire bi na ko tas tasaare na ko tas tasaare et puis nañu leen li may wax c'est très important ber leen xale yi ak marié yi ber leen xale yi ak marié yi sinon nag ah dina doy ah. barki démb rek la fa sept xaw ma huit personnes euh, am doom comme ça ñaar ñi tudd nañ ko Macky Sall mais euh, mais écoutez dañu waxante dëgg ah quand yoo xam ne dañ leen di ber ah démb sama benn copain may woo ne ma booy pain chocolat yaa ngi toj fii ma ne ko lan mu ne ma fii sinistré yoo xam ne dañuy dagal xale yu baax yu fa nekk mais bi ma fa jaaree dama foogoon ne du ñu ay sinistré da ngay gis koo xam ne dafay woddu sër mu fees dell nga laaj ko mu ne man damay buuju voilà donc. Euh, en tant que labatkat et ancien euh, labatkat te ba tey labatkat di un grand frimeur nga xam ne damay frimer rek bon ñu mel ne man mun nañu dugg ci euh, ci école yi ak ci foire ba ñëw taxaw ne la je suis un représentant de l'État euh, noo tudd nga ne nii ma la nañ doxantu parce que foire ba dafa yaatu dafa yaatu nañu waxante dëgg foire ba dafa yaatu nit ñu fa dëkk sax dañ fay réer ak souvent ñu fa dëkkul te dafa am ay ruq yoo xam ne hmm, dañu waxante dëgg na jigéen gendarme yu jigéen ñi nañu def foire ba garder xale yu jigéen ñi gendarme yu góor yi nañu garder sinistré yu góor yi waaye bu ñu bàyyee sinistré yu jigéen yi ak yu góor yi amuñu jëkkër di tase ci couloir yi bu yàggee ay attention ah prison bi dina fes del parce que temps yi iri dafa xew